salaamaaleykum adduna salaamaaleykum Wally Ballago Seck mi ngi leen di jox daje le 21 mai ànd ci kan bii Teranga ñu koy wax Belgique Teranga fan lay xewee ci hôtel Savana Wally Ballago Seck ak waram daan ñan ñoo ko tëgg ñu ngi ni et gars yi c'est à ne pas manquer un événement à ne pas rater Wally ak waram daan ñu ngi leen di jox daje le 21 mai ci hôtel Savana ànd ci nag Belgique Teranga ñu koy wax bii Teranga ee grandchera loo dundadayo